benn section syndicale départementale bu SELS ñaari kan di jàmmarloo majorité bi nga xam ne mooy membre yi ànd ak ki fi nekkoon secrétaire général ba léegi ñu ne lii bëgg nationale bi bëgg def dund ko nangu. benn groupe la une bande de copains ñu bëgg a maintenir seen privilège seeni intéret au détriment des enseignants kooku moo envoyé fii ay nit pour ñu agresser la section de Bambey donc loolu duñ ko nangu duñ ko nangu. parce que syndicat bi euh, section bi dafa am souveraineté. xët-xët bi bëri woon lool ba sax polis moo ci mujj dugal loxo ndax mbir mi mën a am dal. wante superviseur bi nga xam ne moo jóge woon Ndakaaru fexe na ba bureau bi nga xam ne moom lañ bëggoon a teg ci Bambey ñu teg ko ci. am ni secrétaire général bi fi nekkoon moo leen diriger moo ñëwoon foofu di perturber ñun on a cherché des stratégies. Euh, pour restructurer defaraat section Bambey donc li ñu mën a wax mooy section Bam Bambey comme ni ko commission administrative bu CELS bi tërale woon le 19 ñëw nañu superviser ko restructurer nañu section bi ba on a trouvé un secretaire général mu ngi nii ci sama wet ak son adjoint. mu mel ni kon syndicat libre des enseignants du Sénégal am nay jafe-jafe yu rëy ci département bu Bambey.